aouzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ Tuba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñoo ngi leen di sant bu baax yéen waa télévision bi fi ñëw ñoo ngi leen di déglu ba lépp lu nga xamante ni yéen ñu koy laaj rek daañu leen ci tontu incha allahu rabbi ci kàttan yàlla ak baax baaxam a dem comme ni ngeen ko waxee rek tey da am yéene pour waxtaana ak ñun ci wàllu ndoxum siti ci wàllu ndoxum siti ngeen fas yéene waxtaane ndax ñun it ay gëstukat lañu ay chercheur lañu jëmale ci wàllu médecine traditionnelle ci wàllu médecine africaine ndoxum siti nag bokk ci feebaru Afrique rawatina ci feebaru sénégalais kon nag ñu ngi leen di déglu lu ngeen ci laaj rek day tàng ci biir ndax ndoxum siti noonu lay tàmbalee ndox la bu nekk ci biir yaram mais dafay njëkk tàng bu tàngee di liggéey di liggéey bu yàggee nag dafay dem ba tàngoor boobu day am fu muy génn partie bu gën a faible sa yaram rek lay génn mën na génn ci bopp bi mën na génn ci doq yi mën na génn ci karaw bi te surtout sama bokk jigéen ñi xam te ñu bëgg karaw fonk ko ndoxum siti ñu bëri foofu lay commencé ci ñoom day wàcc yenn saay ci bët gént ndoxum siti dana wàcc ci tuñ dana dugg ci bakkan ndoxum siti dana dugg ci biir gémmin ndoxum siti dana ñëw ci put ndoxum siti dana def sax nit mauvaise haleine dënn bi ndigu ginnaaw bi ndoxum dana laal loxo dana laal weey ndoxum siti daal amul fu muy bàyyi dana laal nit fépp fépp ba ci wàllu dooleem ci ngóoram ci kàttanu sëyam dina tere jigéen am doom dina jàpp tànk ndoxum siti day jàpp yax yi metti ndoxum siti mooy feebar bi nga xam ne mën nañu wax ni suñ ko doon topp fi ba suba duñ fi jóg maanaam mooy ndeyu feebar yi feebar yëpp yëpp yi nit di dund rek luñ ci gën a seet ko xooloon ba ci biir ndoxum siti dana ci moo tax te ñun Sénégal macha allah rabbi dañ ko bari la lool xam naa dinañ ci gën a dugg waaw jërëjëf membran cause yi nga xamante ni moom mooy indi ndoxum siti nag mooy suñuy lekk li ñuy naan soow dafa bari li ñuy lekk gerte dafa bari maanaam sunu alimentation dafa tolloowul ak li nga xamante ni mooy sàmm ndëgërlaayu deru yaramu nit donte nag feebar la bi nga xamante ni àdduna bi ñëpp a ko am amul chinois amul tubaab amul ni ku jaune amul ni ku weex amul ni ku rouge ñëppay am ndoxum siti tubaab yi sax léegi xam nañu feebaru ndoxum siti bu baax ndax ñoom maladie syphilis lañ ko daan tuddee wala ay maladie vénérienne maanaam fépp fu mu génn ci ñoom rek am na tur bu koy daan tuddee bu dee ci bopp bu dee ci yaram bu dee ci tànk comme ni ma ko waxee ñoom parti bu mu génn rek ñoom am na tur ñun nag wolof ñoo boole lépp def ko ndoxum siti waaye bokku ñoom seen réalité ak ñun suñu réalité tubaab bi ndoxum siti bi am na kon deru li nga xam te ne lu am solo kon nag ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem am nañ ci ay solution daañ ci gën a waxtaan luñ leen ci mën a leeral xamal leen ko rek daañ ko def incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem nag li ci gën a mooy daf lay indil ay ay douleur mën na indi ay douleur musculaire mën na indi ay douleur articulaire ñu bëri ñoo ngi am problème mu lombalgie problème mu hernie discale lombaire ñu bëri ñoo ngi def ay intervention chirurgicale na dem sax ba indil leen paralysie ñi mu jox leen arthrose te ndoxum sitil am ñoo xam te ni dañ doon sëy mënuñu doom ak seen soxna am na ñoo xam te ni itim am nañu borom kër mënuñu am doom am na ci couple yu am nañu azoospermie ci góor defal nañ leen ay bilan spermogramme ñu dem ba xool ni seen ndox sëykaay dafay woyof day niin bu ñu sëyeeg seen soxna ndox moomu day génnaat ñu ci am njaboot te fekk ni ni lépp ndoxum siti mooy nekk li ko waral ñeen jigéen ñi seen fibrome yi ñuy am kist yi ñu am pour mën am doom faju nañu fu def nañu lu te mënuñu am doom te fekk ni bu ñu jaaroon ci mel ne ku mel ne mu expliquer leen rek dafa leen consultation dafa leen traitement adéquat ci wàllu ndoxum siti ak am doom macha allah ñi daf leen di def mauvaise haleine te loolu yëpp ndoxum siti moo koy waral ñenn ñi sax xamuñu ni hémorroïde bi gars di faj li ci prostate bi nga xam ni moom la ñu moo leen di gën a sonal loolu lu mu ci mënti doon ndoxum siti dafa bokk ci li nga xamante ni ay cause la ay conséquences ak ay solutions yi nga xamante ni ñun am nañ ko ci mën nañ leen ci jàppale may leen ci ay garab ak ay traitement ba mu kon symptômes yi moom comme ni ma ko waxee rek nit ki moom bu la jàppee da lay tëral mën nga nekk sax kuy dox nag di dem mais da ngay xam ni vraiment sa vie handicap la lay indil ndax comme ni ma koy waxee am na ñi nga xamante ni dañu am faiblesse sexuelle bu terrible ñi am éjaculation précoce bu terrible ñenn ñi nga xamante dañuy am soxna mais dor ci mën dara seen awra day tuuti di ndaw di père di ndaw di delu ginnaaw loolu yëpp dafa bokk ci seen doom bi nga xamante ni dafa jëm ci ndoxum siti te surtout ak ñenn ñi mettu biir la leen di def ndoxum siti bu nekkee sa yaram ngay feeñ am ñoom tini ni feeñul mais ci seen estomac la nekk wala ci seen ulcère la nekk wala ci seen biir yaram la nekk te loolu faw ñu dem ba defal leen fibroscopie pour ñu mën ko gis wala ñu mën ko xam comme ñu ko waxee sànq ñenn itim ci yax yi lay laal seen tànk yi day ruux di crampe guddi gi bu ñu tëddee ñu nelaw seen yaram day tàng yaram bi à tout moment da ngay gis muy crampe rek di krat krat krat krat. ñu dégg seen yaxu tànk yi noonu lay def dafa nekk li nga xamante ni feebar bu doy waar symptôme moom daal vraiment symptôme bu yaatu la ñun nag bu ñu ñëwee ci la ñuy mën a poser une bonne diagnostic defal la consultation xoolal la bu baax ndoxum cité bi fan la génn ci sa yaram nan la lay def lan la yàqal loolu yëpp dans la consultation dañ ko def ndax dafa am un traitement forfaitaire général bi nga xamante ni mom lañ lay jox buñ la ko joxé inshallah rabbi dañ lay mayalé consultation gratuite lu mel ka ci gerte dafa bokk ci li nga xamanteni te ne dafay favoriser ndoxum city bu baax te loolu yëpp yàlla may ñu ci nak ay xéewal may ñu ci ay tawfiq yi nga xamanteni képp kuñ ci yàlla bolal tan la mëna may lay garab may lay ñaan yàlla mussel la ci loolu ci walu ndoxum city ndax limu yàq dafa bari comme nima ko wax sank surtout jigéen ñi nga xamanteni ni ndoxum city bi dafay dagg seen i karaw diko dam damm am ay heure seen yaram yi di ñaar ñi am ay ay lésions da am ay démangeaisons seen karaw yi du mëna pousser wala seen karam yi am ay taches yooyu yëpp ak lu mu ci mën mënti doon contacter leen bépp jigéen bi xamante ni sa yaram wala sa peau am na lu la ci neexul rek boo ci contacter daañu la wax ban traitement lañ la mën a jàppale wax la garab bi niñ la koy joxe ba nga jot ci ci kàttanu yàlla ak baaxam a yërmandeem kon nag képp ku ñu soxla rek mën nga ñu woo ci 77 169 45 45 77 169 45 45 ñi nga xamante ni ñooy Touba te soxla traitement ndoxum siti bi mën nañu ñëw jannatu mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni Dakar Géejawaay arrêt du Balès Kër Serigne Bara Dakar, livraison à domicile même wala bok nga sori wala dañ la ko livrer à domicile inshallah. ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak amanu na lu sonal askan bi bëri na ñu moo koy laaj ak bëri na ñu ci posé ay questions yu bëri hémorroïde nag moom dafa am ñaari façon dafa am hémorroïde interne am itam hémorroïde externe bëri na ci jigéen ñi nga xamante ni moom am na hémorroïde ci accouchement lañ koy jële wala pendant la grossesse am nañ ñi nga xamante ni daf borom danañu ci dimbale ba bu ñu fi jaaree def benn traitement du gudd sax daanaka ñu faj leen hémorroïde boobu ba mu dañ ak chauffeur yi nga xamante ne dañu dëju dëju bu yàgg mën nañu wax à la longueur journée euh, ñu nekk ci seen ay oto di dawal ñooñu très souvent loolu daf leen di faral di dal mais ak bu mu ci munti doon rek ñun bu ñu defee consultation bi wala bu fekkee nit ki woote na ak ñun ba waxtaan ak ñun ci kàttanu suñu borom bu ñu déggante ak moom dinañ xam ban garab lañ ko koy mën a jox jàppale ko ci ba mu dañ surtout nag bu nekkee ci góor mën na dem ba di ko téye ci doole ci ngóora ak ci kàttan ak ci wàllu sëy boo leen wootee ci numéro yi ñu affiché ci écran bi daañ leen livré garab yi incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf sunu mbokk taskatu xibaar yi fi ñew tay pour waxtaan ak ñun ci lenn li nga xamanteni ni la askan bi muy walu maladie bi ñuy wax walu hémorroïde maladie hémorroïde nak fièvre la bi nga xamni ñu bari ñong koy jambat ci réew mi ñu bari dal na na nak suñu mbokk chauffeur yi suñu mbokk tailleur yi ak ñi nga seen liggéey tok bu yàgg daf ci bari waaw lolu mom day jur hémorroïde bokku na ci li nga xamanteni moy indi hémorroïde carrément. ak ñi nga xamante ni ci dugg ci waxtaan bi.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 góor ñi bëri na ñum ci sonal jigéen ñi itam bëri na ñum ci sonal les personnes à risque ñi muy gëna daanel nak ñi muy gëna a sonal euh, comme ni ma ko waxee léegi jigéen ñi xamanteni dañu ëmboon nekk en état de grossesse ci ëmb grossesse bi hémorroïde daf leen di sonal ñi ci bari ñeena ñi ci dess itim bu ñu dem à l'accouchement ndax rectum bi dafa jege trop utérus bi le fait que ñu leen di wax pousser pousser bobu ñuy pousse oncle bobu ñuy forcer après accouchement li ci bari ci jigéen ñi dañuy am hémorroïde comme ni ma ko waxee tailleur yi ñi tok toog bu yag chauffeur yi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 galankor yu bari lay jur ah. galankor yu bari lay jur wax dëgg yàlla. waaw feebar boobu niñ ko mën a moytoo ci wàllu prévention am ci pexe li nga la ñuy conseillé nit euh, ci yenn lekk yi ak surtout yi utiliser parce que meew Sénégal li ci en poudre bi la Sénégalais yu utiliser te meew boobu. végétal waaw utiliser les animal daal mooy gën ci ñoom surtout meewu ndox yi gën ci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 45 45 wala nga woote ci 77 160 93 93 Géejawaay arrêt Dubalès Kër Serigne Lamine Bara Fall. salaamaaleykum. mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa Univers Bio tey nag dañu leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee. lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale. waa ñun waa bi bio ku soxla sunu numéro nag da ngay def 77 160 93. 93 sama mbokk yi dëkk Touba te soxla woon produit mauvaise haleine bi numéro téléphone bi nag mooy 76 283 98 69 Touba Jannatul Maxwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni. tey jii nag ñu ñëwoon doon leen présenter lenn ci suñuy produits pour mauvaise haleine. traitement mauvaise haleine bi nag boo leen ko xoolee dafa yaatu ci gémmiñ gi ci put bi ci biir infection yi yooyu yëpp dafa nekk li xam te ni ay cause la lu mën a jur mauvaise haleine kon nag traitement bi yëpp lañ lay jox looy broso pour gémmiñ gi moo nekk ni buy dindi lépp li nga xam te ne day indi xetu gémmiñ comme ni ko waxee dafa yaatu am na nga bi la ñenn ñi dañu am infection ñeenti sachet yi moo koy faj ci biir bi ay garab la ñuy naan poudre la bio naturel ak li nga xamante ni moom lay àndal ndax nee naa leen mauvaise haleine dem na ba ci ay ngelaw seytaane seen biir day ballonné di rëy te loolu yëpp rek day doy waar xet yooyu day dem ba di feeñ ci sax ci bakkanu doomu aadama ni ki di ko noyyi kon garab yooyu képp ko soxla mën nga ci Dakar seen boutique univers bio nekk arrêt de Balès kër Serigne Lamine Bara nga ñu ci numéro yi 77 160 93 93 77 160. 93 93 Voilà mon ngeen numéro bi di Touba Mahwa ci wetu hôpitalu Matlabul 76 283 98 69 76 283 98 69. La plupart des cas de mauvaise haleine proviennent de la bouche elle-même et peuvent être causés par certains aliments contenant des huiles qui dégagent une odeur particulière, par exemple l'ail, les chips pommes de terre et l'oignon. Une infection bucco-dentaire, une carie, ou une maladie parodontale. Une bouche sèche. La consommation d'alcool, la respiration par la bouche plutôt que par le nez, les désordres des glandes salivaires. Les produits du tabac. Des maladies respiratoires. Une infection des sinus. Un reflux gastro-œsophagien. Les causes de la mauvaise haleine sont multiples et parmi elles, c'est parfois l'estomac qui est en partie responsable du problème. Il s'agit du reflux gastro-œsophagien. C'est un problème que rencontrent les personnes qui souffrent de brûlures d'estomac et de digestion difficile. Cette maladie peut avoir des causes mystiques, car beaucoup de nos patients l'affirment. Ils ont fréquenté beaucoup de dentistes pour des traitements, mais pas de résultats, et même faire des interventions chirurgicales pour les amygdales et l'estomac. Pour traiter une mauvaise hélène liée à l'estomac, il faut commencer par diagnostiquer le problème gastrique. S'il s'agit de reflux gastro-œsophagien chronique, il peut parfois suffire d'avoir une alimentation plus adaptée, peu épicée, pas trop grasse, ni trop sucrée, mais riche en fibres, et une meilleure hygiène de vie, ne plus consommer de tabac, ni d'alcool, et boire beaucoup d'eau, sans oublier de bien se brosser les dents après chaque repas. Elle peut aussi être cause par les grains amygdales, également appelés le caséum, qui se forme sur les amygdales, n'est généralement pas dangereux pour la santé, mais il peut apparaître chez les personnes de tous âges. Il est désagréable, il peut provoquer des effets secondaires indésirables comme de la mauvaise haleine, ou des douleurs dans la gorge. Les amygdales se régénèrent en fait en profondeur et produisent des cellules mortes. Quand elles ne sont pas éliminées, elles s'accumulent dans les cryptes des amygdales, où elles pourrissent et génèrent une mauvaise odeur. Le problème peut être visible sous la forme de petites boules blanches dans la gorge. Cet entretien a été fait par Sorin Lamine Barafal. Contactez-le au 00221 77 169 45 45 pour bénéficier de ce traitement miraculeux. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax tey jii nag ñu am yéene pour waxtaanee lenn ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla lu sonal sénégalais yi la lu sonal askan bi la. yéen nag waa télévision bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fii di ñu laaj ñoo ngi leen di déglu ci lépp lu ngeen ñu laaj rek incha allahu rabbi ci feebar bii ngeen wax ni moom geen am yéene pour waxtaanee ko muy feebaru mauvaise haleine ñoo ngi leen ci déglu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف سرين توبا جرى لك مام شيخ إبراهيم فال لام جرجف مام واو ديفينيشن موبيز ألين موم موي أليتوز موي خطو جيمين بيغا خامني نيكي نيكو وور ولا انتوراجام دنج كاي فارال دي سانتير لي خامتيني دال دا فاي اندي خط بيغا خامتيني دال دو موي اي انفيكسيون بيكو دانتير لولو انفيكسيون بيكو دانتير نك بو لين كاي ديغي نيك اي انفيكسيون ولا اي باكتيري ولا اي ميكروب يي خامتيني نيت كي داكاي ام سي جيمينم ci plaque dentaire yi ak surtout ci infection yi xam te ni dafay nekk ci biiram wala infection yi xam te ne dafay nekk ci put bi loolu nag euh, la majorité ci ñi nga xamante ne dañuy am mauvaise haleine bu nga xamante ni bu ñu demee hôpital mën nañ leen sax def loo fibroscopie pour ñu mën a xam infection yooyu fan la nekk ci ñoom ñu bari ci ñoom it dañuy dem ci hôpital dem ci dentiste yi jaar fu bare bare bare bare bëri waaye il faut qu'un spécialiste en ça te itim dafa laaj un traitement bi nga xamante ni général parce que mauvaise haleine dafa nekk feebar bu yaatu feebar bu yaato yaatoo yaatu yaatu li ko mën waral ci nit dafa bari lool te xam naa ni ci biir émission bi boo leen ñu dégloo ngeen teewlu ko di ngeen mën a comprendre lan moo koy waral dëgg dëgg dëgg dëgg ci doomu aadama. waaw jërëjëf Mamran euh, mauvaise haleine nag dafa bari trop ay forme comme ni ma ko waxee léegi ñenn ñi seen mauvaise haleine ci gémmin gi lay jóge ñenn ñi seen mauvaise haleine ci put bi lay jóge mën nañu am amygdale am ñi nga xam ne dañu am angine ci put bi am na ci dañu am ay grain yu nekk ci biir put bi bu ñu yeewoo génne ko. buñ ko génnee dañuy génne ay grain yu weex buñ ko tojee muy mel ay doomi ceeb buñ ko tojee muy am xet. bi nga xamante ne daal ñoom seen bopp sax du leen neex te grain yooyu buñ ko gisee ay infection la maanaam dajale na ay bactéries yu bëri ci ñoom ndax am na yoo xam dañu am poche fii buñ fa lekkee lekk bi dana fa des ñaari fan ba ñetti fan lekk boobu day dem bëri day nëb di am xet. am ñoo xam dañu am ulcère am ñoo xam dañu am estomac am ñoo xam dañu am reflux gastrique œsophage am ñi nga xamante ni itam dañu am hémorroïde ndoxum siti loolu yëpp dafa bokk ci forme yi nga xamante ni dafay provoquer mauvaise haleine maanaam fu mu mën a jóge ci nit bari na am na ñoo xam te xet googu day dem ba nekk seen yaram maanaam day nekk ci seen poqataan bu ñu sangoo sax quelques minutes après rek bu ñu ñaqee xet bi day xeeñ seen suufu tànk yi day xeeñ ma baal am ñoom te ni seen seen diggante tànk yi ci suuf dañuy gis ni day retax day xóoñ day am xet moom kon xet dafa nekk li nga xamante ni ci nit lu doy waar la da ngay déranger nit ñu bare bare bare bare te nit ñooñu am mauvaise haleine ñenn ñi xam nañ ko ñi ci des xamuñu ko te ñenn ñi sax dañ leen koy dem ba di leen ko jànnee wala di leen ko jëwee wala di leen ko waxee am nañ ñoo xam te dañu am feebar duñ ko xam mais nit ñi dañ leen koy xoole te duñ leen ko wax te loolu yëpp dafa nekk ci li nga xam ni lu ñuy faral di waaw Mame Rane loolu moom lu neex a xam la ndax kenn ku ci nekk xam nga sa bopp waaye ku ñëw def consultation ci suñu cabinet ñun niñ koy xamee bu dee ñun la exactement dañuy poser une consultation def une bonne diagnostic bu ñu poser consultation boobu def diagnostic bi ci la ñu mën a xam lan moo mën a indi gàllankoor boobu ci nit def consultation bi def diagnostic bi am na ay petit travail ñu lay defloo am na ay exercice ñu lay defloo nga ñu identifier ko ba xam ni réellement euh, mauvaise haleine ñaareelu mbir boobu bu ñu jógee ci loolu itam ñu xam ba xam fan la mauvaise haleine bi mën a jóge ci moom bu ko defee bu ñu def euh, traitement bi ça nous permettra ñu xam exact fan la nekk waaw jërëjëf membran ci wàllu wàllante nag wàllu contamination ak mauvaise haleine am na ndax wax nañu ni am na infection yi nit di am ci gémminam wala infection yi nit di am ci yaramam yi nga xamante ni mën na wàllante ndax feebar yi am nañu yenn nit ñi nga xamante ne bu ñu amul yenn hygiène de yi ci seen bëñ wala seen i gémmiñ duñ ko toppatoo bu baax nag ma baal ci kàddu gi buñu la foonee sax la fait ñuy foonante boobu rek mën na la wàll feebar bu ñuy wax feebaru mauvaise haleine kon nag am na bactéries yi xamante ne bu la ko transmetre rek mën na dem ba yooyu bactéries yooyu day day placé wu ci say plaque dentaire day dugg ci say diggante bëñ te mën na dem bay lakk sa bëñ xalal sa bëñ sa bëñ day dem ba jaune wala sa bëñ day dem ba xonq cur wala ci yenn ndox yi ñuy naan échangeante yenn ndox yi dafay nekk li xam te ne dafay mën a wàllante mauvaise haleine waaw jërëjëf membran waaw mauvaise haleine moom ni muy manifesté woo euh, xet bu naqadi rek di wax ak ay nit nit ñooñu di dem dëmmooyu di la wan ginnaaw ngay wax ak nit muy tëfli ngay wax ak nit da santé ni nit yaa ngi koy déranger mu jël yéreem taf ci bakkanam wala taf ci gémminam nga xam ni kii vraiment euh, am na odeur buy manifesté wu dafay dem ba yàq seen àddina dootuñu mën dem ci xew dootuñu mën dem ci mbooloo ñenn ñi yàq na seen sëy ñi yàq na sax seen liggéey am ñoom tamit dañu amoon relation lool ak doomu yi di nekk nit ñi di jaay di business nekk doomu aadama yi nit ñi bëgg leen ñu bëgg mais dem na ba mënatuñoo ñeme sax dugg ci biir nit ñi fu ñu toog rek xet bi dafa leen di déranger dañ koy sentir am na ci ñenn ñi xam te ne sax dañuy ba ci barabu hôpital yi wala yenn structures yi mais dañ leen di jàppee dof dañ naan yow rek yaa koy xencu te fekk dafa laaj une diagnostic dafa laaj une bonne diagnostic bi nga xamante ni yow aji fajkat bi soo amul temps malade amoo ci moom yërmande toogoo dégluwoo ko xooluloo ko wala maladie bi malade dafay bëgg di wax rek te du def consultation bu approfondie parce que yenn feebar yi boo ko amee pour mu am résultat il faut faire une bonne diagnostic bi nga xam te ne dafay approfondir ndax diagnostic bi soo ko approfondiree li la war yow malade bi def ko kii fajit li ko war mu def ko kenn ku ci nekk da nga am sa waar fajkat bi dafa war a déglu malaatam malade bi itam warul def automédication maanaam déglu jël garab bi baax na barab baax il faut ngeen seet ay spécialistes ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu malade bu nekk wala façon malade bu nekk ñun gis nañ ko on a beaucoup beaucoup beaucoup d'expérience à ça te képp kuñ ko jox traitement bi itam un traitement traitement général complet lañ lay jox yalla defal la ci tawfiq ci kat. waaw jërëjëf Mamran euh, walu mauvaise haleine mom amul mak amul ndaw amul jigen ku nekk mën na la dal nit day am dom sax di xeeñ ci xetu gémminu domam mais daf ci sentir xet bare na ñu mu dal lool man mi tout le temps dama koy dégg yaay bu ma woo ma man de sama dom xetu geminam neexul ñen ñi nak parfois nattu yalla la ñenn ñi itim ñak toppatoo ci seen bop ndax bo nekkee xalé itim do brosse bañ normalement day yàq sa bañ sa bañ day dem ba day jaune day xal day dem ba teg beur ñi xamanteni duñu soccu duñu bros seen bañ ndax amna na xamanteni sax rat ak ngelaw sheytane mo leen ko def ñen ñi itim liggey ndax nit dina nek ci barab di liggey wax deug yalla nit ñi bëgg ko jublu ko mais day na war am ñoo xam lay yóbbu ci sëriñ sané la nga xamni ñi la jublu won ñëppay dëdd won la ginaaw à tout moment fo tok sa yaram day xéñ te loolu itim nek na li nga xamanteni baxul loolu itim yépp maam raan dafa nek li nga xamanteni lu nit ñi di dund ndax buñ ko waxulit ki tok diñu sétante gis ci bopam du ci xam dara te du xam sax fan la jëm

fajal la ko ci amig daal fajal la ko ci rab ngelaw seytaane ci wàllu liggéey maanaam du ñu bàyyi dara traitement général la traitement complet la incha allahu rabbi contacter leen ñu daañ leen wax nu ñu koy fajee généralement dañ ciy def taw fe xéewal lañ ci def bi nga xamante ni forfaitaire am na livraison gratuite ndax du ñëpp a mën a ñëw ci ñun am ñoo xam te wax dëgg yàlla ay kilifa lañu wala seen tànk dafa diis mënuñoo ñëw fu ñu mën a nekk dañ leen fu mën a fekk livrer leen seen traitement ci sutura ñu ambalé ko jox suñu chauffeur mu indi lako ba sa kër ak fo mëna nek ci Sénégal ci adina mën nañ xefee ba nga jotti inshallah rabbi am ñoo xam te ni nag mën nañu ñëw comme ñu nekk Dakar wala ñu jege ñooñu mën nañu ñëw def consultation ndax niñ leen koy defalee c'est un traitement forfaitaire ci biir forfait bi da ngay amaale consultation gratuite wala nga am livraison gratuite kon nag ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ñoo ngi ñaanal képp ki nga xamante ni rek am nga feebar bi ñuy wax jéem ñu contacter ñu wax la forfait bi ñaata la bi xam ne di ci am consultation am ci livraison lép nekk ci biir jox la traitement bi xam te ni du bàyyi dara ñu bëri nag dañ koy faj ci gémmin bàyyi biir ñu bëri dañ koy faj ci ci put bàyyi nangam gis juróom-ñaari bëñ wala juróom-ñetti bëñ bëñ bu ñu dindi yaakaar ne xet bi la te fekk du ci bëñ yi ñenn ñi ci làmmiñ bi lañ koy yaakaar te fekk ni mën a nekk ci biir a biir a biir a biir a biir waaw kon nag lu mu ci mënti doon incha allahu rabbi danañ leen ci mën a jàppale defal leen ci consultation may leen ci garab jàppale leen 169 45 45. du consulter Touba mais am nañ fa sama kër a ngi Touba sama këru bop mi ngi Jannatu Mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul fawzeni danaka ñenti mbedd la ak Matlaboul fawzeni numéro Touba bi de 76 283 98 69 ñi dëkk Touba ak liko wër bo leen ñëwee Jannatu Mahwa danañ leen ci mëna dimbali bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax inshallah rabbi même bu dé da nga nekk Touba war consultation dañ leen ko mëna a par téléphone Dakar dong laay defee consultation Touba nak une odeur persistante désagréable dans l'air expiré communément appelée mauvaise haleine. La mauvaise haleine, également appelée halitose, est un problème assez fréquent. De nombreux facteurs peuvent en être la cause. Dans 85 à 90% des cas, la mauvaise haleine est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le tabagisme, la bouche sèche, une infection de la gorge, angine, des amygdales ou le reflux gastro-œsophagien. Ainsi, le problème de la litose est injuste, certaines bouches se défendant moins bien contre les bactéries, certaines salives étant moins efficaces contre la plaque dentaire. Il vaut mieux donc penser à quel soin votre bouche a besoin. Il existe chez notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77 646 41 21 77 160 93 93. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique très fréquente dans beaucoup de pays africains, notamment le Sénégal. La drépanocytose est une groupe de maladies provoquant la déformation ou la dégradation des globules rouges. Cette déformation des globules rouges a des conséquences directes et indirectes par hexamol, une destruction anormalement rapide des globules rouges, dont la durée de vie est ainsi très diminuée. Ces globules rouges déformés vont obstruer les vaisseaux dans des circonstances comme la déshydratation, le froid ou le manque d'oxygène. Et va se manifester par des douleurs. Il existe chez notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77 646 41 21 77 160 93 93. Une crise d'asthme peut toutefois engager la vie d'une personne. L'asthme peut causer des troubles respiratoires, des douleurs thoraciques, de la toux et une respiration sifflante. Chez une personne asthmatique, les bronches sont anormalement sensibles à certains facteurs comme l'exercice physique, le froid, la fumée de cigarettes ou l'exposition à des substances responsables de réactions allergiques, allergènes. Depuis les années 1960, l'asthme est en progression constante dans beaucoup de pays comme le Sénégal. Chaque année, environ 500 adultes meurent des suites d'une crise d'asthme. La plupart de ces décès pourraient être évités par une bonne gestion de la maladie. Il existe chez notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77 160 93 93 77 160 93 93. Écoutez ceci c'est très important. Si vous avez un besoin fréquent d'uriner ou des fuites urinaires, des difficultés à uriner, présence de sang dans les urines, difficulté à avoir une érection, douleur au moment de l'éjaculation. Vous avez sûrement une prostate. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie, en avant du rectum et entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. À bout d'un certain temps, la prostate peut s'étendre dans d'autres parties du corps, en migrant via les vaisseaux sanguins. La prostate est très fréquente chez les jeunes de nos jours, mais particulièrement, chez les personnes âgées. Il existe à notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre la prostate. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77 160 93 93 77 160 93 93. La varicocèle est une dilatation des veines du cordon spermatique situé autour du testicule, conséquence d'un mauvais fonctionnement de valves situées dans les veines. Elles peuvent entraîner une diminution du nombre de spermatozoïdes et de la qualité du sperme, menant à la stérilité et même l'impuissance. Les personnes qui souffrent d'un dysfonctionnement du système veineux peuvent être plus prédisposées à développer une varicocelle. Il existe chez notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77 646 41 21 77 160 93 93.